fait que tey ñu ñëw fii pour euh, célébrer pour julli julli it ici si département de Koungheul et comme nu ngeen ko xamee jour boo xam le. la jour pardon la baalante àq et ñu ngi bal àq ñëpp di bal àq ñëpp di baalu àq ñëpp aussi parce que loolu mooy Sénégal leneen li mooy déglu nañu imam imam c'est euh, maam da ko wax si walum bëggante si walum gëm-gëm si wàllum aussi entre aide entre les donc euh, musulmans. lors dafa am solo lool population si réew parce que looloo tax muy cimenter la cohésion sociale di cimenter aussi donc la stabilité la paix parce que sans la paix on ne peut rien faire dans ce pays là des réew mi a xam de réewum jamal la donc ñu ngi ñaan jàmm boobu wéy bu baax a baax baax fii si Sénégal leneen li stop moi dañuy dem si wàllum élection moi daf am solo mooy falum jiitum réew d'ici 2024 vraiment dinañ am élection boobu de commencer nañ ko processus bi commencer nañ ko parce que révision yi mu ngi dem daanaka une semaine moo si des donc ñu ngi ñaan population bi ñu jotul woon inscrire nañuy dem si commission yi inscrire foofu pour mun a am seen carte pour mun a fal jiit mu réew parce que loolu mooy Sénégal loolu tax réew mi di dal di am jàmm di am salaam parce que loolu aussi la ñu nawee Sénégal bu baax a baax a baax leneen lu si topp mooy dañuy dem si wàllu Conté, c'est-à-dire lu wax le recensement général de la population et de l'habitat loolu nga xam ne 5e édition chaque dix ans lañ ko war def parce que loolu day permettre euh, état bi gouvernement bi ñu am ay données yoo xam yu de telle sorte que politique yi ñuy def ci biir askan bi yëpp mu mun ci yoon aussi ñu ngi ñaan vraiment ñoo xam ne ñoo fi ay leaders locaux ñu mel les député yi ñu les maires, maire yi ñu présidents ni président conseil départemental ñu mel les donc les chefs de quartier les délégués de quartier les chefs de village nous appelons ici askan pour que les agents recenseurs soient venus ici, la pour donc parce que nous en général euh, aussi askan bi am ci bu a baax lool aussi ñu ngi koy ñaan bu baax d'ici le 15 mai lañ koy commencé parce que formation yi ño ño wara def recensement commencé depuis leneen li si topp dañuy dem si ay hivernage daanaka léegi mu ñëw de ñëpp xam nañu aussi réew mi réewum agri euh, réewum agriculture la mbéy moo ko ŋànk daanaka mais mbéy duñ koy wax Sénégal dañuy wax ndox ndox mooy hivernage surtout donc ñu ñaan suñu borom mu may ñu ndox mu ah, sell bu ah, bu bëree bëri bëri ba xam ne béykat bi population bi dinañ ci gis seen bopp parce que si ñooñ gisee seen bopp rek daanaka askan bi yëpp ñoo si gis seen bopp en ñu ngi leen di sel gërëm di leen sant wasalaam jërë ngeen jëf